élection locale et, et législative euh, mën na la handicapé un peu parce que yeneen protagonistes yi nga ko yi nga ko bon Abdoulaye Diouf Sarr a perdu à Yoff et euh, il a perdu dans Dakar aussi euh, Boun Dionne n'a jamais compéti pour un poste élec électif mais kii di muy Mame Boye muy Abdoulaye Daouda muy Aly Ngouille ñoom ñëpp ils des bases et ils ont gagné aux dernières législatives. oui c'est loolu mën na nekk. Euh, ces ces élections de 2022 li ngeen ko ñàkk à Dakar euh, est-ce que mënul nekk un refrain boo xam ne dina dellu si lu bare ah, il faut faire attention dans les jours parce que lii am euh, xam nga Dakar c'est un poids extrêmement important boo jëlee région de Dakar ñeenti nit ñu mënti ñu woote kenn ki Dakar la dëkk donc Dakar du loo xam ni dañ koy comparer ak yeneen localité yi une perte d'une localité comme Dakar mën nga ci am ay voix yoo xam ni c'est quatre ou cinq fois supérieur à des voix d'une personne qui a gagné dans une autre. ressentiment bi du du du benn. non oui mais du du benn c'est-à-dire euh, quand tu perds Dakar aujourd'hui dans les élections présidentielles yi ñëw si on perd Dakar c'est presque le, le second tour est presque assuré parce que ñeenti nit ñoo jël euh, kenn ki mi ngi dëkk mi ngi dëkk Dakar donc euh, il faut aujourd'hui qu'on se donne les moyens de gagner d'autant plus. li président liggéey benn ni Benno organisé parce que ceux qui sont en face de nous ne sont pas organisés dañuy dañuy dañuy làmbaatu rek fi mu fi fi mu nekk nii euh, jàll bi dafay dafay yomb il faut l'unité il faut aussi que le président soutienne euh, le candidat qu'il euh, aura aura choisi bu ci ñëpp jàppee ça permet de poursuivre la mise en œuvre du PSE et loolu le président bëgg mooy li am solo Comment poursuivre le plan Sénégal émergent Comment mettre en œuvre sa sa vision te loolu ça dépasse nos personnes. yaa ngi wax waxu union booba tey semaine dernière euh, seen waa ñooñu Dakar yi. Ah. dañu may un un spectacle désolant. une bagarre une bagarre à la permanence. c'est mu nekkoon une réunion euh, du département de Dakar élargie à la région euh, ñu ne say ñooñ. ak ay ñoñu Diouf Sarr ñoom ñoo fa xeex ba toj permanence bi xam nga loolu luy am